dañ ko brosse laaj ko daam activiste nga wala syndicaliste mu ne acteur de la société civile euh, peut-être euh, ñu ngi ko doon wax acteur de la société civile amaana day neutre ñu ràññee woon la lool daam ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko euh, déjà lan moo la poussé à ce que nga porter combat boobu ak comment tu analyses les faits après tey jii plusieurs plusieurs temps plusieurs peut-être mois sont passés après avec le recul comment tu l'analyses ces faits sant yàlla rek parce que ku ne xam na dossier boobu ni mu mujjee te it may assume li ma ci def parce que man bi dossier bi ne caay Sénégal gépp jot ci le trois euh, mars je crois si je me trompe euh, ñëpp commencé di wax ci dossier bi man damaa tey rek déglu parce que tamit ñun Sénégal damay wax ni kenn nelawatu fi yàgg nañ fee gis nag ay dossiers yàkkataan. yàgg na fee am. c'est important nono non loolu yàgg na fee am. jigéen ju nu siif. du yoon ñun ñëpp dañ koy ñaawlu. waaye yàgg na fee am ku dem kuy dem tribunal rek gis nga ni. dossier siif yi du fa jeex. waaw kon nag loolu su amee. man dama naan tekk xool mbir mi ni ne parce que Sénégal damay wax ni ñi doon nelaw. même bu fekkee am na ñu doon nelaw ay jamono parce que nga jamonoy réseaux sociaux yi nga nekk moomu. Mhm. dafa dafa soppi lu bari Sénégal. c'est vrai am nay jamono ñu bari mun ñoo jot ci information yi léegi village ba la gën a ndaw Sénégal. da jot émission grand bi ñu ngi ko fay seetaan. c'est même bu ñu amul courant. loolu lu lu révolution la c'est-à-dire jiite dañuy defe ni parfois dañuy fàtte ni adduna bi dafa soppee la léegi naxante moo fi mëntu la nekk parce que ña doon nelaw. ña doon dajjant ñoo ni këlëb ci seen kaw ñoom ñëpp ñu ànd ni foccat yeewu ñu yeewondoo yeewondoo ñëpp ni foccat yeewu <laughs> fii kenn nelawatu dëgg la de loolu moo am kon nag dossier bi soo ko xoolee ba ci biir day leer nañ ci sa kanam dès les premières heures ci ñi ma jege man ñi ma jege ñëpp may leeral comme ni ma koy leeral toujours booba ba ma koy wax waxumaak ak ku jege Ousmane Sonko waxuma ak Ousmane Sonko aw ma woon numéro amul sama numéro mas na noo dajee naam lu mat juróom benn at ca ginnaaw avant ñu koy dàq ci fonction publique mm. ba ñuy dajawaat ci benn hôtel de la place bu mu doon def conférence de presse ñu dàq ko dàq liggéeykat ma dem taxaw ci wetam booba laa commencé gisaat sequma ak moom ay mbirum parti politique xaw ma bureau xamul sama bureau mosuma dem siège mu sa ñëw sama siège waaw kon nag su ma ci wax man dama ciy wax sama aqulaay taala mm-hmm. ma analyser li nga xam ne moo xew mu leer ma na mm. ni bu doon lii dossier Euh, ku jigéen ku nu siif la ak nañ koo waxe ay dama siif yore ñaari arme yore ñaari arme ñu xool ni ñanga xam ni ñu siq mbir ma moomu boo leen dégloo ku ci nekk ci ku ñu siif war ngaa xam ne bu ñu wa raconté la fa xew rek mu leer la nañ ne ñu ko parce que siif nag mooy àndoo ci yow ku jigéen ki ça c'est important amul consentement daal consentement amul bu consentement amul ci ko xam lan mooy siif ak jigéen ñi ne nu fonkee seen bopp en tout cas jigéen ji joxewul boppam même ki nga xam ni parce que rapport médical ba nga xam ni presque moo leeral lépp sax même bu fekkante ni premier aspect ba nee na kii ñàkk na ndawam lu yàgg nit mën naa ñàkk ndawam lu yàgg te ñu siif ko mais dafa may élément yu doon prouver siif au moins kër koo xam ne ab terrasse la fi nii la ñu wax ne fa la mbir ma xewee ak fi salon bi nekk ki nga xam ne borom këru ki moom salon bi fa mu toog matul ñetti mètre mais ñetti mètre wax dëgg yàlla kay boo nee eh, sax ñu dégg la waaye loo xam diggante matul ñetti mètre ñu ni moom mu ni dégguma benn yuuxu dégguma benn in moom bi mu génnee ñëw na génne reeram reer tranquillement te reer ba ma nga jógee résidence Mamoun ci ko xam quarante mille lañ koy fay par weer ma daal ni complot baa ngay commencé ñu mu leer naññ ni kooku ci boppam nee na xaalis bi mu ñëwee di ma ko jox xaalis bi nga si moom la Ousmane Sonko fay mu ne moom bi mu koy joxe wanewul lenn luy wane ne moom dañ koo violé. mais dame est-ce que nekkuñu tamit di def euh, peut-être amaana comme ñu ko bëri di defee condamné déjà Ousmane Sonko alors que y pas encore de procès est-ce que nekkoo di def procès avant le procès même. Ah, wala rendre même ton verdict non mais ñun nag xam nga dossier bi bu ñu defuloon loolu musiba am na heure bii <laughs> parce que ñii liñ doon waajal liñ doon waajal ci waaji parce que man waaji man nee naa leen demaluma fenn mais nag du ñu seetaan injustice muy am suñu réew parce que dañoo gis ni ay pexe yu leer la woon par rapport ak ki nga xam ne moom la concerné mais yow mos ngaa gis koy jiñ nit viol yow say mbokk sax mun ñoo jot ci yow. donc bu ñu la déggee état dafa reculer ci dossier bi. wala parce que nañ bu ñu def loon nen. dafa reculer recul pour la première fois depuis 2012 président Macky Sall ñàkk un combat. Ah, ah oui pour la première fois mi ngi doog am yépp la gagné. mais nag man seet naa ne ñëpp ñiy ñàkk nguur bala ñoo ñàkk nguur gi yàlla dana def ñu am defet ñi yore nguur man lu ci ëpp boo xoolee bala ñoo jeexal nguur gi dana am defet parce que bu du loolu dañuy nekk yàlla de mhm. gañe lépp mëntu woon a nekk fokk mu am bis boo am day ñàkk bis boobu la ñàkk maanaam guléet combat yëpp da koo gañe combat sur le parrainage dañoo taxaw ni ko parrainage bi da nga koo def pour faagaagal ay candidat mu taxaw génne ay saaram xeex ak ñun gañe bett ñu ñëpp naan mais char yi nii génne lu ko fi jar mais booba moom xam na fi mu bëgg jëm parce que par loi la le parrainage bi la bëggoon jàllale à l' assemblée mayul kenn mu àgg assemblée nationale jege doo ko jege sax poste Médina sax noo faa yegg ñu ñëwaat mu def fi ay procès yoo xam daf faagaagal ay candidats ñëpp xam ne ay candidats lay faagaagal mu jaay doole parce que moom dafa gëm ni mooy may sa tend joor buur la teg boppam jaay doole mu jaay doole di di di jël doole juñ ko jox ñun sénégalais yi di ko duma loolu la président Macky Sall def depuis 2012. waaw léegi nag bii dossier mu ñàkk te am na ñoo xam dégg naa leen ñu naan Ousmane Sonko dafa def appel à l'insurrection ah dafa def mortal combat la wax ne bii yoon moom la et cetera gis nga Ousmane Sonko ba layam layam mi woon ci kaso bi lay dee. Hmm. ah oui man bi ma dégloo mu def discours ma toog ñi ma toogal man leen Ousmane rëcc na. donc soulèvement ñuy wax ne moom moom. non du soulèvement. Euh, soulèvement amul wootee dégg nañu le ministre de la justice bi def conférence de am na droit. Mhm. ni ñi ñi ànd ak moom. ànd ñëw moom ndax Ousmane Sonko est le plus beau de. Sénégalais yi faawuñu nit. xam lu ñu ànd ak moom dafa am projet bu muy porte wax ne daa war a day andi lu bees lu bokkul ak lii fi am mooy ni ñuy caxat caxatee suñuy ressources. ni ñuy andee corruption bu metti ñuy yore sunu réew xale yi bëgg xëy mun ñu ko am. ni nga xam ne moom la institution yi di tëddee ñuy ñuy am budget boo xam ne ay niche yu baree ngi fi ñu caa jot mu ne yooyu yëpp bu ñëwee da koy soppi pour Sénégal jëm ca kanam loolu projet boobu mu porte moo tax xale yi topp ko mais du leneen léegi nag projet boobu la ñëw ca conférence de presse am koy waaj a jël si te boobu mi ngi am immunité parlementaire ñu convoqué ko te ñu naan jot demuñu woon pour jëli ko waaye kon tax ñu convoqué ko xam nga nit ñi vraiment a caag damaan sénégalais yi nag duñu ay dof yow convoqué nit ki ba pour jëli ko daam yow da ngaa teel a wax nañ ko sànq da nga teel a yuuxu ne complot la. mais euh, nga teel a chargé Adji Sarr. non chargé wu ma Adji Sarr yëpp nga chargé ci aji Sarr. dossier bi quand même une jigéen la nekk sénégalaise bu am ay droit wam euh, amoo leen yow loo mën a reprocher Ousmane Sonko dans cette affaire daam. Euh, man nekkuma ci procès moral bi xam nga lan mooy procès moral bi Ousmane Sonko ji ñu ko daa yegg ci jigéen jum déggul xam nga bu doon loola yoonu kenn nekkatu ci. bu doon dañ koo jiiñ ni daa daa am jigéen jum séqal joom ñoom ñaara ci déggoo te kooka du du xale mag la xam nga boobaa coow du am mais kenn jiiñu ko loolu moo tax procès moral bi ñu ci bëgg a dugg buñ ci dugg loolu du débat bi débat bi mooy dañ koo jiiñ siif comme dañ koo jiiñ siif mooy viol man bu may wax ci loolu laay wax mais leneen li kay ma yoon nekku ci parce que Sénégal kenn terewu fi góor ak jigéen il faut mu leer aussi ci ñi may déglu mm-hmm. yàlla subhaanahu wa taala mi ñu sàkk day tere sax nga wéet ak jigéen joo sëyul euh, joo sëyalul te te sëy mën a dox seen diggante waaye Ousmane Sonko dama bëgg ci dossier bi nit ñi xam ne Sénégal ci sunuy loi ni mu tëddee sànq rek yéen a gis dossier bi ngeen def ay jigéen a ngi ci mbedd mi di jaay seen bopp ku leen ko jox ku leen jox seen carte du état leen ko jox ku leen jox carte bi ñuy taxawee ci mbedd mi policier bu leen contrôlé bàyyi leen carte boobu ñu yore seen carte jaay seen bopp ku leen ko jox du état kon kenn terewu ko fi. mais daam recul bi yaa ngi. non attends c'est important. c'est important loolu c'est kenn terewu fi mooy. Sénégal kenn terewu fi mooy. parce que ober yaa ngi jaabaa njool la ci dëkk bi ku bëgg a mooy mooy dañ koy tere nag mais sa sa diine ak sa yàlla subhaanahu wa taala mais la sàkk moo la ko tere kon nag léegi moom bu ñu ni woon dañoo dem mooy bu fekkoon am na man gëwuma ko parce que awma ci benn preuve parce que nag ñun jullit tere nañ ñu ngay wax nit mooy na te tegoo ci sa bët loolu c'est important parce que même ñuy def procès moral bi Euh, oustaz n'est-ce pas dañ ne il faut ñeent gis ko nekk ay témoin te duñu bokk fu nu jógee n'est-ce pas loolu la bu dee du loolu nga jubbanti ma. te jóge yu sori la sax kii Kaolack kii Touba voilà duñu bokk fu jóge jógee. gis ko Casamance. loolu amul ci dossier bi parce que moom ci boppam mii tuuma la sax amul benn preuve mu teg ci loxo nit ñi ba dem ba ci biir sax dani man sax waxatuma waxu viol moom moo ko wax ci conférence de presse am moom Adji Sarr man waxatuma sax waxu viol waaye na wax ndax maa ngi moom séquñu dara booba laan leen dossier bi mat na. sànq yaa ngi wax recul bi recul bi yaa ngi jàpp